asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci ajuma ji di leen wax rek euh, mu mubarak ndax bu ngeen gisee kat nu ñu taxawoo rek tey ngeen xam ne nag euh, ñu ngi ci bés bu sell boobu di ajuma comme ni ñu tàmmoo aussi di ko defee rek euh, tous les jours dañuy ñëwaat ak yéen ci seen cas seen émission boobu nga xam ne yéen a ko tàmm di ko xaar tous les jours ah dañuy ànd ak yéen waaye laataa may door rek tey li nga xamante ne mooy cas bi ñu leen andi la damay nuyu rek ki nga xamante ne ñoom laa bokk plateau bi sax laay wax mais ma commencé ko ci Ramatoulaye Ramatoulaye maa ngi leen Euh, maa ngi lay fay euh, Mariama di am euh, content contentement bu baax a baax defaat retour fii si seen émission. waaw tey tey gis naa la de tey moom da nga àjjuma macha allah <laughs> robe bi moom xam naa ni baax na man nga koy jox ma xaw ko retaaye tuuti rek. gis naa sa pour benn ajuma bi di gis naa sa bës Mariama gis naa sa bës. Aïcha mi ngi noonu ah kontaan nañ trop euh, di la am ci plateau bi tous les jours mais bu la fàtte aussi suñu góor ki nga xamante ne moom mooy DJ moom moom day ànd ak ñun aussi tous les jours mu ngi ci plateau bi ma nuyu ko DJ moom maa ngi lay nuyu. Euh, Mariama maa ngi lay fay euh, di nuyu ramatulaay di nuyu aussi mbokki internet yi ñuy seetaan partout dans le monde à travers Equivox TV. dinaan leen mu mubarak di ñaan yàlla may ñu gudd fan gu ànd ak wërgu yaram xéwal yu saawaan baawaan musal ñi ci lu bon ku bon ak képp ku jóg ngir def nit lu bon. Aïcha am na solo lool ah, comme ni ñu koy waxee rek tey nag li leen andil rek la lu am solo. nekk na loo xamante ne aussi daw na yaram également muy euh, soxna soosu nga xamante ne ñu ngi koy wax ay Aïda ay Aïda Mbacké nag dafa rek euh, taal ki nga xamante ne moom mooy borom këram ñu ne ngir lan ndax firange firange moom moo andi loolu noonu nga xamante ne ni xew na foofu noonu di jëmoo euh, li may wax rek euh, d'abord mooy que gis nga àdduna euh, dara jarul lu bon et lu bon dara mënu ko justifier Aïda Mbacké mhm. tey ak lu jëkkëram mën a def kenn dootul tudd jëkkër ji yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana mais li mu def dafa ñaaw ba fu ñaaw weesu parce que dara gënul bon yow ki nga xam ne moo la takk ci farata ak sunna ak lu mu mën di def mën nañ ko faje neneen mais du faat bakkan et que dinaa la wax leen faat bakkan dara justifié wu ko et que Sénégal dañu toll foo xam ne maanaam rey moom daf fi yomb man je pense que ne tey mala yi sax mala yi sax léegi seen bakkan moo ëpp valeur que bakkanu doomu aadama yi parce que Sénégal Sirla Sala rey nañ ko donc bu ñu demee ba ay crise de jalousie war a mën a tax ji jigéen di taal jëkkëram ah c'est grave te jigéen royukaay la man je respecte beaucoup la femme parce que grâce à la femme je suis mais nag bu ñu demee ba jigéen bi nga xam ne tey moom moo jur ak jur na mu mettee ëmb na mu mettee bés ñëw mu xaw la gaañ donc bu ñu demee ba yow mi nga xam ne yaay yaay nga am fitu taal sa jëkkër ndax jalousie takk na takkul ak mën bu takkee bu takkul non amul dara lu justifié rey moom mooy li nga wax noonu am na solo ñu fàttali rek suñu mbokk internet yi parce que version yi bëri woon na ñi ne woon nañ dafa am jabar ñi ne gëlam la woon waaye li nga xamante ni moom lañ jot a dégg ci baal bi rek moom soxna soosu di Aïda Mbacké bi mu waxee dafa xam le ni dafa jël borom ñu këram dafa wàcc mu gis euh, ay message yoo xamante ni jot na génn message yoo xam ne dafa am ay kër ba mu jotee seetlu nag ba woore ki nga xamante ni mooy soxna soosu nga xamante ne ni moom la gisoon ay message am ci téléphone jëkkëram kooku di ko xamal yenn yoo xamante ne daal mu ko neex ba mu ko mënulee supporter nag dafa rek jël benn huile boo xamante ne ni boo ko taalee ni ki day jàpp mu sotti ko ki nga xamante ne mooy borom këram mu daal di koy rek taal te bu leen fàtte aussi ci xamle boobu mu ngi nekkoon soxna soo xamante ne ni dafa toll diggante Euh, ki nga xam li nga xamante ne nag moom mooy tribunal tey àtte ko ci fukki at ak juróom maanaam 15 ans de prison tey jii lan mooy jar loolu ki nga xamante ne moom mooy euh, Rawatulaye. Euh, Mariama man daal tuuti boobu fi may commencer mooy. Mhm. d'abord ci côté insensibilité bu ñu nekkee léegi. Mhm. parce que je vois que les gens de plus en plus insensibles te insensibilité boobu am na fu mu jógee. Mhm. tey jigéen wax nañ ko fi waxaat ko fi. Mm-hmm. nii dënn bi sëggee noonu la xel bi kii sëggee ñun nu sommes euh, ay résultats lañ si lu ñuy subir maanaam xale góor yi les hommes ce qu'ils nous font ñun moom rek la ñuy doon suba mm-hmm. parce que gis nga seetloo rek boo seetloo la plupart des enfants qui ont grandi ci famille yoo xamante ne ñoom conflit rek lañ xam maanaam foo gis papa ji ak yaay ji dañuy xuloo di xeex di sandante ay xeer di dóorante les enfants quand ils grandissent violence mm-hmm. boobu noonu ñu daan gis seen temps enfance noonu la ñuy màggee ils grandissent violents mm-hmm. parce que moom lañ xam moom la ñuy gis diamétralement mm-hmm. opposé ak famille yoo xamante ne douceur calme toujours euh, stabilité tranquillité bi la plupart des enfants qui grandissent dans ces genres de famille dañuy màgg am paisir nekk ku euh, ku ku ku ku sedd du xam violence. donc man ñi may condamné mooy góor ñi. Mhm. nañu bàyyi <laughs> di troxal jigéen ñi. Mhm. parce que la femme ce la a fait. Mhm. je condamne nag la fekk mu rey ko parce que rey moom yàlla santaane wu ko nanguwu ko. mais loo fi gis ñu def yaa a une cause derrière. boo gëstoo bu baax a baax. lu mu def noonu am na li ko war a euh, euh, jàpp tooñ weesuwul may ma ma ñëw tooñ weesuwul. Mhm, ñu jàpp ni rek euh, li nga xam li ñu ci mën a jàpp ci li andi drame boobu noonu rek jalousie la parce que en résultat loolu rek moo ci génn soxna si nee na fii moom moo ko jàpp rek ba li mu def li nga xamante ni moom la def di jëmoo. jalousie gis nga gis nga gis nga mhm. d'abord. gis nga àdduna. Mhm. une leçon de de de vie lay wax. àdduna. boo bëggee noppalu. da ngay yemale sa bët. yemale sa tànk yedd sa xel. ci naka téléphone sa téléphone jëkkër la. loo ciy wut d'abord parce que moom jëkkër ji mën na ci denc loo xam ne peut-être bëggul jabar ji gis ko. ku ci nekk am nga droit yor sa téléphone. est-ce nga. mais nag ku set gis. ñàkk respecté sa jëkkër weesuwul. mu teg téléphone nga vérifier. téléphone am may ma ñëw. non ñàkk wer respecté sa jabar weesuwul nga dem liggéey ñibbi si toog ci salon bi nekk sa téléphone te doo waxtaan ak sa famille. loolu ci ku jigéen ki la. si ku góor ki la. xam nga lu tax si jigéen ki la. <laughs> Eh, Mariama. Uh-huh. tey si jëkkër bu ñëwee. la nga toppatoo jox ko ndox. Uh-huh. waxtaan ak moom mais day waxtaan ak yow. mais tey boo nekkee ci à la uh-huh. moom day ñëw concentré wu ci leneen. du ko def xam nga lu gis nga bakkan jàmm la bëgg. ndax dégg nga wax ji. jigéen góor mënu ko nu ko rëcc. góor mënul mucc ci pexem jigéen tey sa jëkkër lu mu sonn sonn sonn boo bëggee sax mu jug di dawi bu ñëwee xam nga nooy def ba mu jug dawi day fekk gisoo leen leneen est-ce que comprendre nga mm-hmm. mais dama ne la la dame li mu def amul lu ko mën a justifier xam nga lu tax mm-hmm. sànq nee nga violence d'habitude xale yi nga xam ne dañuy màgg ci ay famille violente mm-hmm. léegi lool la ñuy màggale non mm-hmm. ay doom yoo xam ne mm-hmm. euh, seen i papa ak seen i yaay bon tranquille na juddu nañ fi nekk ay agresseur ñu nekk leneen ak leneen ak leneen may ma ma ñëw may ma ma ñëw may ma ma ñëw may ma ma ñëw gis nga mm-hmm. man li may bañ gis nga ku mu dalul munoo xam métit bi na mu doy ndax dégg nga wax ji sa jëkkër de tooñ bi weesuwul nga vérifier téléphone am ñëw nañ foofu bi nga vérifier téléphone ku set gis ndax sa doom bi nga jur sax. boo fuyee téléphone am di nga ci gis lu la naqari. ndax comprendre nga léegi nga fuyee sa téléphone jëkkër mais mun nga ko régler d'une autre manière nit nit dina bett des fois jëkkëram di doxaan au lieu que mu indil ko violence mais dafay rusloo jëkkër ji ba jëkkër ji dina jombati. di war jabaram ndax dégg nga wax ji mais yow tey boo amee sa jëkkër mu gis la sa far sax laay wax. tey boo ko amee mu gis laa ak beneen góor bu nee la léegi da nga may trahir loo koy tontu maa tey. Mm-hmm. waaw mais am na nu mu la koy waxee Mariama da ngay rus da ngay xam ne góor laa ko seqal. di nga jombalati sa bopp yenn yi. moom li nga am na solo loolu damay rek uh, gën a yaatal damay damay mm-hmm. damay ñëw ci yaramatulaa li nga wax am na am na solo. Mm-hmm. mais faut pas pour protéger ki nga xamante ne moom mooy borom këram. parce que xëy na yàgg na di def bés boobu la ko yàlla weer te may ma ma ñëw te am na nit yoo xamante ne ni jigéen bu fiir Euh, moom c'est autre chose. Mm. waxuma nag ela bala jigéen ñu jàpp seen jëkkër ñëpp ci li nga xamante ne ñu ngi doxalee ni ni mel nañ def comme soxna soosu buñ defee li nga xamante ne moom la soxna soosu def xam na leen ci fekk ndax yoon mi ngi ci dëkk bi kenn moo gis nga respecter sa jabar dafa am. Mm-hmm. xam nga nit euh, c'est pas pour autant que dafa dem xool bi téléphone jëkkëram non mën na am dafay tombé yàlla bu lay weer bés bu mu lay weer doo ko yëg. Mm-hmm. est-ce que dégg soo soxna yow ci yoon sax amoo droit naan da ngay am jabar di def la ca des. wala itam boo demee ba mënatoo ko ba mënatoo ko booy def góor yéen am ngeen xel mu ñor bu toll nii bu ngeen def seen yenn yi bu ngeen bëggul nit xam ko bu ngeen bëggul nit yëg ko du ko yëgee fenn. xam nga luy problème bi jigéen ñi xam nga luy problème bi jigéen ñi. luy jigéen jigéen jigéen luy seen problème. non may ma ñëw xam nga luy problème bi jigéen ñi xam nga luy seen problème yéen jigéen ñi. jigéen danaan la jigéen danaan la bugguma ku ma fen. te boo ko waxee dëgg mu bala. non non boo nekkee ak sa copain yow boo nekkee sa copain copain laa ma mm-hmm. jëkkër de mm-hmm. da nga naan ko man du ma ànd ak ku dul wax dëgg. Mhm. ndax dégg nga wax ji bu la nëbbee dëgg nga ne daf lay fen te bu la waxee dëgg nga bokk. moo fii ñu ngi ci diggante jëkkër ak jabar. exactement ci diggante couple union boo xamante ne ni. Mhm. dafa sacré ci loolu la ñuy wax. Mhm. tey ji bu nekkul woon jabar ji. da def li mu ko def. xam nga tey jii jabar ji laa tool ci moom la ne mais bu nekkul woon da def li ko def déjà loolu du am benn. ñaar bu respecté woon jabaram pour autant ba wax ci sa kër xam ne yëpp da lay nga teg ko à jabar boo fi gis mu visité mu jël mu am audace jël téléphone jëkkëram di ko xool c'est parce que am dafa da am lu ñaaw si xelam peut-être. Mhm. du nit ki du jékki-jékki rek jël téléphone jëkkëram di ko visité jëkkër ji bu fekkoon ni bu wàccee mi ngi si moom mu ngi koy peut mu ngi koy toppatee kon ni nu mu ko waree. Mhm. di def si moom li ko war jabar ji du mu sa xalaat. dafa am benn exemple bu ndaw bu ma leen di jox sama waay la mook jabar ji. Mhm. billaahi ku góor ki bu tegee téléphone dem entraînement bu téléphone bi di sonné bay xar du ko xool ku góor ki aussi noonu lay def bu téléphone jabaram di sonné bay xaar du ko laal xam nga tax may ma ko woon non xaaral mhm. loolu ku nekk respecté sa morom xam nga nee ngeen waa ji bu ko defutoon loolu dam mais ndaw si bu xoolutoon téléphone bi loolu gis nga may ma ma ñëw mhm. gis nga góor yàlla may na ko droit ba ñeent ndax dégg nga wax ji mm. waaye waxul doxaan gu métti de mais ak ni ñu koy defee. waxul ak benn doxaan gu takku waxuñu li mu def dafa ñaaw li mu def jëfu ku bon li mu def ginnaaw li mu def kenn nanguwu ko. li mu def li mu def kenn nanguwu ko dara ci àdduna mënu ko justifier Aïda Mbacke. Euh, euh, li nga wax noonu dama la koy gis nga bakkan dara justifié lan moo tax mu def ko ak lu mu dëgg ñun jigéen ma ne bu ko bëggutoon du ko fekk ci ay biir nawleem ne ko euh, coppet honoré ko. nu ñu mel mm-hmm. góor a ko waral. ñun ñooy ñoom ñooy yàq suñuy xol. ñoom ñoo ñuy def mhm. yoo xamante ne. Mhm. loolu moo ñuy poussé di di di di di di def certains actes en fait. jigéen elle est la femme elle est naturellement sensible am na yoo xamante ne ñun ñooy sukk jur ñooy ëmb. gis nga gis nga Sénégal li xamante ne on mhm. va jamais le faire sans cause yéen a ñuy wan luy tax ñu def ko sa jëkk sa dafa metti sa jëkkër dem liggéeyi wàcc ngeen toog amul sax sa temps sa si téléphone am lay nekk di waxtaan ak ay ay ak ay jigéen. de gauche à loolu ça fait très mal imagine waxtaan complicité boobu noonu ñu amoon avant dans les familles léegi amatul da ngay gis famille ñëpp toog ci salon ku nekk ci téléphone am ku nekk complicité amatul waxtaan waxtaanatuñu te complicité boobu noonu moo daan tax euh, yërmande di am. Mhm. ci diggante nit ñi. Mhm. mais léegi waxtaanatuñu. yërmande waaw complicité boobu yéen a ko njëkk a rey xamul tax yéen a ko mhm. njëkk a rey. bu njëkkoon sa jëkkër bu doon ñëw day fekk nga toggal ko lu baax. tertoo ko tertu ni ñuy tertoo buur waaye bu ñu demee ba léegi sa jëkkër day toog ñëw xiif nga woo allo livreur foo toll c'est grave d'abord deuxièmement yéen seen temps yëpp da ngeen ko jël ay defar seen bopp make ba ba seen jëkkër may ma may ma ma ñëw may ma ma ñëw may ma ma ñëw ba yéen seen jëkkër seen jëkkër mm-hmm. seen jëkkër léegi da ngay da da ngay da am jabar dafay nekk femme mariée mais vie de célibataire lay bëgg dund te en plus gi Sénégal li tax rey gi yomb Mhm. sama jëkkër message na rey naa ko kii def na lii rey naa ko gis nga bu nekkoon ku rey ñu rey la Sénégal rey gi jeex parce que attends attends gis nga kenn rek moom mérito rey muy yàlla subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo sàkk ñépp est-ce que comprendre nga mais yow mi nga xam ne sàkkoo jaam bi mhm. par crise de jalousie nga rey sa jëkkër en plus rey bu ñaaw en euh, matière de rey moom mën nañ nangul nii li nga xamante ne moom mooy rey kenn amul doomu aadama maanaam amul droit jël li nga xamante ne mooy mm-hmm. bakkanu mono beneen moroomu doomu aadama moo on est mais li nga xamante ne am na ba pare am na mais ñi nga xamante ne ñu ngi à côté di situation tey ñooñu ñoo tax ñu teg plateau émission bi waxtaan ak parce que ñaakul am ñoo xam ñu ngi ñu ngi ne moom la Aïda boobu noonu soxna Aïda boobu noonu def ba nga xamante ni li ko ci fekk ko fekk ko ci ñi nga xamante ne ñu ngi si seen biir sëy euh, Ramatulaay mm-hmm. xam nañ de ñu ngi ne pat mais comme di dit y aura jour boo xamante ne ni dinañ explosé te bu ex bu ñu exploser péter dinañ def ay dégâts tey jii yooyu la ñuy essayer waxtaan ak ñoom recadrer de telle sorte que. Mhm. bi nga xamante ne mënatuñu rek nañu wootee li nga xamante moom mooy communication mhm. am nañ ay waajur am na ñoo xamante ne ñoom ñoo leen maye woon am nañ ay goro am nañ ay njëkkee am nañ ay nijaay am nañ ay bàjjen mhm. tey ji dafay jaadu boo demee ba xàmmeetaloo ki nga xamante ne moom mooy sa bërëm kër mhm. li njëkk war mooy nga waxtaan ak moom ci biir bu nga waxtaanee ci biir gisoo ci benn solution dafay jaadu tey jii nga wootee li nga xamante ne moom mooy réunion de famille sa yaay jëkkër wala sa papa jëkkër mu waxtaan ak moom ginnaaw loolu yëpp bu te dara it changé wu ci day jaral boo xam ne mënatoo rek balaa leneen la ci fekk nga génn. comme on dit comme on dit je pense euh, du Ramatulaay du Mariama. Mm-hmm. ku nekk ak ni ngay contrôler sa émotion am na ñoo xam ne bu ñu maree dañuy toj télé yi dañuy toj euh, taas yi di. effectivement sànni téléphoné. Mhm. am na ñoo xam ne suñu mer ak ils préfèrent rester dans leur calme toog ci benn coin. Mhm. kooku nag peut-être noonu la mën a extérioriser meram. tu comprends c'est vrai que rien ne justifie di rey nit. rey moom loolu dara justifié wu ko. Mhm. mais tamit li waral mu rey ko tamit nañ ci wax. Euh, gis nga man fi may. doxaan bu metti gi daal lañ ko. fi may njëkk gis nga war uh-huh. gis nga conseil bi may jox sama moroomu góor yi. d'abord. képp ku ci takk jabar. bul takk xale 3C ki naan capable coupable criminel. xale 3 ku ko takk lu la ci fekk yow la. est-ce que comprendre nga. aussi ñu nekk seen négocié di subir les mêmes conséquences. gis nga dafa am loo xam ne dañ ko dañ ko bàyyi. waxtaanu néeg lañ doon jiital d'abord bu ñu demee ba ci waxtaanu néeg të ñu def ko waxtaanu ëtt bu ëtt tëwee ñu doog ko def waxtaanu penc. waaye léegi déedéet waxtaanu penc la ñuy def penc mooy lan. au lieu que ngeen régler ko yéen ñaar seen biir sëy mhm. mais non non day mujj foo xam ne nit ñi ku nekk siy jot gis nga sëy jaamu yàlla la du bànneex kese jëkkër ji mun na jàdd à ku ku jigéen ki mun na jàdd à mais ay nit ñu ngi fi am jëkkër am far mhm. seeni jëkkër xam ko fexe ba nax leen ba ñu génn ci loolu parce dans la vie noonu la jubbanti la. est-ce que yow tu penses pas que may ma ma ñëw may ma ma ma. may ma ma ñëw may ma ma ñëw. gis nga di nga am sa jabar sax mu xaw am nu mu mel. Mhm. nga jubbanti ko. Mhm. mais dama ne la am na loo xam ne dafa ñaaw dara mhm. mënu ko justifier man rey laa mënul nangu te gis nga pas une première maanaam sama jëkkër mu ngi doxaan. rey naa ko sama jëkkër am na beneen jabar rey naa ko man j'ai tellement peur amaguma soxna. mais dama ragal. moo gis nga ni nga ragalee noonu. ni nga waxee ne ñi nga xamante ne non dama damay ñëw ci benn point. ni nga waxee ne am na góor ñoo xam ne ñu ngi ak seen i jabar. Mhm. seen jabar yi di doxaan wala di am beneen far du mos ñu xam ko xëccaat leen ba delloo si waat leen noonu la amee ay soxna yoo xamante ne ñu ngi ci biir kër yi di sëy seen jëkkër doxaan nañ ba am feneen doom ñu jël doom boobu delloosi ko ci kër gi def ko comme doom bi ñu jur di ko yar di ko teete di def ci moom éducation ba nga xamante ne moom lañ def ci dëkk bi di def lu ko neex ci biti terewul mu ngi toog di sëy di muñ waaye dafa fekk ni mhm. la woon démb du tey mhm. góor ya woon démb du soxna si yi nga xamante ñoom ñoo nekk fii tey mhm. moom moo tax la plupart du temps situation yi di am di am mais pas pour autant rek tamit euh, nga épargner ki yow moo boobu ba léegi maa ngi gis yaa ngi xale bu góor bi dama bëgg mu wekkee ni góor nga en mm-hmm. tant que góor mm-hmm. am na yenn yoo xamante ne dañ koy wax teg ko sur la table am na góor yenn yoo xamante ni kilifa warul li nga xamante ne moom mooy góor parce que mënuñ ne la kii soxna si yow yaay kilifa kër gi yow yaay seen kilifa xale yow yaay seen kilifa ba pare yow tu te permets de faire certaines choses. mais en plus mais xam nga fa dañuy nëbbatoo léegi. Mm-hmm. góor kat jabar la war a am. ñetti jabar mais léegi benn jabar la ñuy am ak doxaan bu métti dañuy basé wu ci loolu noonu nekk ci doxaan bu métti est-ce que t'imagines. Mm-hmm. balaa may dee boo waxee ñu naan la damay labat. mais yow yow yow Ramatulaay Ramatulaay Ramatulaay bëgg laa indil problème xoolal kenn duñu lay mm-hmm. man ce que je conseille aux garçons mooy que gis ngeen jigéen dafa lëndëm jigéen a nu jur donte bonaluñ ko ndax bu ñu bonalee jigéen ñun ñoo bon ndax fa nga génne boo ko bëggee bonal yow da ngaa bon am déet donc ku ci takkati xoolal bu baax fi ngay takk parce que takk naal xamal leen xale yu jigéenu léegi koo ci ne sëy dina comporté woo de telle sorte que ne day nëbb léppam lu bon boo ci xesee ba dugg bu la doon woowee papa dagg na papa bi paa lay wax te paa xoolal boo mujjee ci paa ee eh, la yow yaay tax ñu dagg luy tax muy muy na eh, yow yaay tax muy dagg papa bi xam nga li tax comportement yi mu gis ab yow jigéen ban jigéen lañ fi takk nga nga nga indi ko nga indi ko sa kër di ko di ko gàtte tu tu es avec kay ma wax la nag jigéen dafa bëgg jàmm de fu mu am jàmm fa lay toog hmm. parce que yow tey jii boo takkee boo takkee jabar nga indi ko sa kër di ko may jàmm di tu es avec elle di kafa moom di reetaan ak moom tu l'as fait vivre tu penses que jigéen boobu noonu xoolal xam nga papa bi sax lay yokk di la woowee yeneen ak yeneen mais bu gisee ay changement si yow commencé gis ni xam nga boo tey séminaire suba deuxième bureau gannaaw suba fee ah papa bi dañ koy doon rek tudd sa tur ba teg si 60 nag Mariama dafa am loo hmm. wax nga ne la woon démb amatul hmm. tu as parfaitement raison hmm. te la woon démb lu bëri ko góor gi daf ko échangé par galanterie may leen ma ma ñëw. démb jigéen da doon root. dëmb jigéen da doon taxan. démb jigéen da doon nekk ci këru famille boole ñëpp njaboote. léegi xale yu jigéen yi ko ci takk danaan duma dëkk ak goro. yéen ñu ko tàmmal may ma ma ñëw. non moom bu changé waaw may ma ma ñëw may ma ma ñëw. non may ma ma ñëw xam nga xam nga moom démb laa lay wax. non non bu ñëw bu changé débat bi moo da ngay wax ci li nga xamante ne. waaw ci laay ñëw maanaam ci laay ñëw maanaam ci laay ñëw. parce que tey am na loo xamante ne boo ko waxee ci jigéen ñu démb boo ko comparé ak jigéenu tey man tam mën naa jël loo xamante ne góoru démb lañ doon dund. comparé ko ak góor tey buy changé débat bi. tey ci li nga xamante ne mënuñu ko indi tey. mënuñu ko andi parce que jamono bi dafa dépassé mais am na yoo xam ne la woon démb buñ ko coppatee ci démb indi ko ci tey. moom laa lay wallaay sëy du déraillé. ba ñu ma li nga wax ba ñu ma li nga wax donc man man daal li may li may. mais il faut comprendre aussi les choses les choses ont évolué. il faut l'accepter ça mais jamono. Mm. jamono ba muy baax. la doon baax baax. Mm. la doon bon di bon. Mm-hmm. man daal li may wax mooy. Mm-hmm. képp ku nekk ak jigéen wala nga nekk ak góor. Mm. mu leer na ne yow attanoo li muy def mu ngi jàdd à gauche. Mm-hmm. attanoo ko. wool ñi nga xam ne ñoo leen maye. nga taaj leen taaj ku góor ki wala ku jigéen ki. ngeen waxtaane ko. tu te contredis yow. non xaaral ma nga am sa jëkkër wala nga am sa jabar mu mhm. nekk euh, jàddu góos. Mhm. wool kilifa yi nga xam ne ñoo toogoon may leen. Mhm. ngeen régler ko. balaa muy dem ci loxo yoon. moo pare nga. tout à nee nga fi. jëkkër ak jabar bu ñu amee problème bu ñu ci duggal kenn nañ toog ñoom ñaar ñu. waxtaan ci waxtaan nañ ko waxtaanee ci benn affaire dama ne la nañ ko waxtaanee néeg. Mhm. buñ ko waxtaanee néeg bu néeg bi fajul. waxoo ko fi ñu ñu ñu ñu ëtt ko. Mhm. bu ëtt bu fajul nañ di doog ko. ñu doog ko ñu doog ko ñu doog ko def ko penco am na solo am na solo da may may rek très rapidement xam naa waxtaan bi tàng na jër te li lañ ci doon bëgg parce que idée yi tout tout le temps day am divergence kii nekk fii kii nekk fee mais euh, ngeen xamee ko yëpp c'est pour rek euh, ñi nga xamante ne ñu ngi ñu seetaan ñu mën a retrouver wu ci li nga xamante ne ñun moom lañ leen di andi saa su nekk comme thème ci biir seen cas noonu nag lañ leen di joxee rendez-vous di leen wax ni laataa may tàggoo ak yéen mu bàyyi rek di jëm moom mu tàggoo euh, li may tàggatoo mm-hmm. loo xam ne dañ koy partager ak ñëpp mooy ko àdduna bi dee gi bëri na simla saala rey na nit par jalousie mm-hmm. nañu xam ne bakkan dafa sacré mm-hmm. te location bakkan amul fenn dee na ñëwaat amul fenn jigéen ñi nañu bàyyi une trois rey na diw ndax jalousie wala bu reyul jëkkëram rey na wujjam par jalousie boo nekkee góor dem ba xam ne lii muy def arrangé wu la ngir yàlla ànd dagat na waaye tàggoo dagat na bu ko defee doo sonal sa bopp doo sonal say mbokk te doo sonal kenn maa ngi leen di jox dig daje mm-hmm. euh, beneen yoon ci seen ka ak beneen ka di euh, nuyu bu baax encore une fois euh, ki nga xam ne mooy ramatulaay ayca <laughs> am na solo loolu li mu wax kooku di DJ Mo ma bàyyi rek Ramatoulaye mu tàggoo ñu ok man daal li may tàggatoo mooy góor ñi nañ xam mm-hmm. ñoom peut-être suñuy dee physiquement ñun ñoo ngi dee intérieurement te looloo gën a bon lu ñuy muñ ci suñu xol bi ñun ñoo ko xam foofu laa yem ak yow. am na solo lool eh, ki nga xamante ne rek eh, moom mooy Ramatoulaye ah, moom nee na foofu la yem ak ñun amoon na solo lool te thème bi ñu leen xam naa ne da ngeen koy gën a yaatal si seen biir kër yi ah, mën ngeen cee waxtaan ak seen njaboot waxtaan ci ak seen ay borom kër ci biir week-end bi incha allah d'ici là man dama leen di jox rendez-vous lundi prochain incha allah passez une excellente week-end un excellent week-end.